asalaamaaleykum ami cheikh internet bu Dakar net dal leen jàmm ci seen émission bi nga xamante ni xam ngeen ko muy waxtaan ak waxtaan ak nag di émission boo xamante ni votre serviteur Davida moo leen koy faral di présenté ñu ciy dalal ku nekk rawatina ñi nga xamante ni dañ leen di gis aussi ci biir société bi ñu ciy amal ay action yu rafet rawatina nag bu Sénégal soxlawee rek ñu jug taxaw kenn tey moom lañu seet si du ma def nag lu dul jox ko micro bi ñu bari miin nañ ko xam nañ ko ci action yi muy mënee donte lu nekk nag dina koy faral di daj mais da koy dékku ngir lan bëgg gi mu bëgg société bi bëgg bi mu bëgg aussi population sénégalaise bi waaye tamit bëgg bi nga xamante ni bëgg na ko yéen ñi koy seetaan sax da ko ci war a jàppale ndax léppam féppam mooy kat ku ci nekk sa kër nekk ci sécurité ci lay dox kon du ñu def lu dul tàllal ko suñu micro papa ñu lay nuyu. waa kay euh, euh, mbokk mi damay mbokki téléspectateur u Dakar Net ak mboolem ñi yëngatu ci boobu plateforme commencé ko ci kaw ba ci suuf te di ci jiital technicien yi nga àndal. Euh, ci wàllu centre de redressement bi yow nga am benn témoignage boo jël teg ko ci sëñ Modou Kara ñu bari di laaj lan mooy sa affinité ak sëñ Modou amul benn affinité seulement ñun du ñu def mug ma riirandoo amul benn doomu aadama bu mën a am ci Jamra mbir xew ñëpp ne oh, jàpp leen sàccee wuub ñu di ñu topp ci rek comme ay dof wooy jàppaleen leen sàccee wuub ñun on fonctionne pas comme ça mbir bu amee dañu naan tek ni ko ci wax def taxaw seetlu ñu daal di gis ne que bi sëñ Modou karaa di créer centre yi en 95 en 96 euh, li ko si dugaloon mooy li ñu dugal ñun ci jamono rek waaye on n'a pas les mêmes approches euh, mooy taxawu jeunes yi yi nga xam ne dañu dem ba teg Sinébar ba Sinébar def leen jaam mu di leen jàppale moo tax si sama page Facebook euh, publier naa fa benn séance de psychothérapie de groupe comme ni ko nasaraan di waxee bu sëñ du karaa def foofu ca euh, Lansar euh, ay plus de cent jeunes alors moom dafa am sa propre approche tubaab yi dañuy dialoguer ak yow. pour fexe ba génne la ci xam lan moo la ci dugaloon moom nag dafay indi wàccal leen ay alxuraan yëkkati ay xasaayit sëñ Tuubaa teg yëkkati ay addis teg waat loo leen est-ce que mën ngeen ma waat ne bu ñu fi daje waatee déwén ci même waxtu bi ñëpp jóg waat tuub naa ko nangam ñi daanu ci suuf di xaalu ba après on a après que ce cet électrochoc là ñu bari jële nañ fa une force morale jële ci jom ba bàyyi yàmba waaw léegi nag ñun duñu nangu koo xam ne am na lu mu jot a liggéey ci jeunes yi ba déglu nañ ci médias yi des réseaux sociaux yi des jeunes kenn saxalu leen sukkar yu témoigner ne man fa ma nekkoon ca musiba ak fi ma centre de redressement yi euh, indi par honnêteté morale je me dois de porter un témoin wax. ñëpp a naan papa moom ana doomam ji ràngu loolu daal lañ ma yóbbante moom daal laa lay jox rek. sa doom ja la lañ laa ci man dossier boobu dama ci pare woon yàlla dafa dogal ñun ñi ñëpp eh, ku ci nekk am nga compte dans les réseaux sociaux ñee ngi Instagram ñee ngi Facebook ñee ngi YouTube Jamra nag un peu partout ku ci nekk ci ñun tamit parce que y a moyen de s'informer aussi rapidement que dans les réseaux sociaux waaw noonu laa gisee comme tout le monde dans le fil d'actualité parce que fil d'actualité genre boulevard bu mag la marché Sandaga la publication yi fa lay défiler du yow yaay tànn lay lay défilé waaw ma gis benn as ndaw bu ko sol benn sakuru silip ak sein ak soutien yu ndaw ñu liit ci suuf ne dafay def la promotion d'une soirée privée à deux cent mille ba pare ma daal di dégager continuer di surfer le lendemain mu daal di ñëw ci beneen melokaan toujours soirée privée deux cent mille réservation xaw ma lan le lieu est tenu secret ba ma demee ba gis ko trois fois ma gis sa benn naataango Euh, ma ne ko waa ndaw si ban nationalité la sénégalaise la wala leneen la mu ne ma sénégalaise la kay mu ngi tudd Rango ma ne ah waa kii xanaa amul ay mbokk def soirée privée mën nga def sa sa sa promotion te doo futteeku di toroxal sa bopp ndax bu ñu fàtte ne internet c'est visible au la de nos frontières que ca Japon que ca Burkina Faso que ca Kuala Lumpur bu ñu xoolee ne ah sénégalais yi ndekk nii la ñu mel. mu ngi causer moralement di tort à nos no à nos nga xam ne dans leur écrasante majorité jigéen Sénégal dañu am kersa dañu yëw mu ngi dégrader l'image de la femme man day wax dëgg yàlla loolu rek laa wax dès le lendemain rek <laughs> sa benn confrère ma waaw géey géey ma ne ko mu ne ma demal nga dugg sit sàngam ma ne ko lu fa xew mu ne ma ndaw si tontu na la de ma daal di dem xool mu naan paa ji bii may wax mu naan xaw ma day yàddaate xaw ma lan kii nga xam ne di jóg suma kër ma di ko suppu kànjal di ko jox ay njaru soow di ko présenté samay copain góor jigéen <laughs> maanaam yi jamra di xeex yëpp <laughs> mu daal di ma ko askanale ah man tam ma déglu ko rek daal di bàyyi réseaux sociaux yu toj nag ah est-ce que sax c'est pas vrai est-ce que li mu wax sax amul yàqkat yi góor jigéen itam profité ci di xam rek ba jataay ba jeexee ñu ne waaw waaw loo xam ci tontu bi la ndaw si tontu <laughs> ma ne leen ndaw si euh, déjà yooyu mu doon def dem na ba Jamra mu joon jël décision pour préserver l'image de la femme de déposer une plainte pour euh, euh, outrage aux bonnes mœurs ak attentat à la pudeur conformément à l'article 318 et 324 du code pénal waaye léegi elle a un deuxième problème mooy elle va avoir maintenant une plainte pour diffamation presse bi jàllale loolu xam naa mu tiit waaye itam dégg naa sa concert bi Mati Trois Pommes yedd na ko quand en tant que sa grande sœur mais toujours est-il ma toog ba ca ngoon nga même waa jama woowoon ne ma ndaw si defal na la vidéo woowaat ma eh, Guèye ma ah, mu ne ndaw si defaat na vidéo de ma ne ko waaw moom du bay bàyyi man dama ko doon yedd rek bu ko neexee jël ko consi en considération bu ko neexee sànni mu ne ma defaat na la vidéo de ma ne waaw lu ci wax mu ne ma non non bii c'est différent ma daal di dem taal gis ko mu nga sol tenu ibaadu abbaaya yaru waaye ba tey wewu jasit yi moom mu ngi ci ba tey naan waaw non man waxee ma ko noonu bañ naa ko ba ma turam maa ngi jégalu di jégalu waa Jamra bu ñu bëggee sax dëgg naa ñu ngi def ay jéego pour dimbali anciens combattants yi suñu bëggee sax ma ñëw jàpp ci liggéey bi maa ngi jégalu daal di tuub dès suñu compte whatsapp ak email bi submergé de centaines de messages gars yi naan ñu am na sax ay kilifa yoo xam ne du message sax waaye dañ ñu woo waa géey yéen itam a ngi woote l'islam yéen waa Jamra kii tooñ na nangu ne moo tooñ nangu ne la mu la waxoon dara amu ci waaw jéggalu na waaw kay xanaa yàlla ku ko tooñ sax mu jéggal ñu ma daal di ne ah ñuy wax nañ dëgg ah. ma daal di waaxu dem rue de Thionk seeti la commissaire Bara Sankhare de la de la urbaine ñu jàmm sante ma ne ko ana plainte bi ma déposé woon ci mu ne ma plainte ban ma ne ko ndaw si wax naan damay ñëw këram di lekk ay suppu kànja ak njaru sow mu ne ah rangu mu ne ma plainte baa ngi fi waaw ma ne ko dimbali ma nga xotti ko ah bon ma ne ko waa jéggal naa ko baal naa ko ci xol bu sedd guy erreur de jeunesse la pour man laa page est tournée donc Jamra jéggaloon na ko pour mu leer Daouda kon nag lan moo ko yóbbu kaso ba mu tëdd fa juróom benn weer corona bi la je veux dire que loolu mu doon organiser tuddee ko soirée privée bi état d'urgence ñëwee ànd ak couvre fa mënatul organiser soirée privée parce que boo déggee soirée guddi la te guddi gi day am couvre-feu mu dari ko reformuler tuddee ko yendu parti di ko defee fii quelque part euh, Ngor Almadi ndekete la division des investigations criminelle et la brigade de cybercriminalité ñu ngi koy topp di ko suivre ba mu tëju ba nekk ci mbir mi ñu bett ko en flagrant délit de partouze mu amoon peut-être une dizaine ay jigéen yuy def naka su dul noonu mu am benn troisième larron bu yore caméra haute définition di leen filmer alors le rapport de déduction du jam la rek waaye ñëpp ko liirandoo ci presse bi rapport d'audition bi fësal ne ndekete dañuy tourner ay film pornographique di ko jaay à des sites pornographiques ba police ne sax moom ci boppam moom ndaw si am na site pornographique alors ñu daal di ko yóbbu présenté ko au juge du huitième cabinet Mamadou Seck mu daal di gàll ci loosam les chefs d'inculpation de diffusion de nouvelle euh, diffusion dimage contraires aux bonnes mœurs attentat euh, euh, ki nu mu ti euh, proxénétisme mooy ngay liggéeyloo ay jigéen yuy jaay seen bopp luñ ci am nga bokk ak ñoom défaut de carnet sanitaire mooy kuy jaay boppam te amul carnet sanitaire voilà kon nag loolu tribunal la amaloon affaire waaye du Jamra Jamra baaloon na ko waaw léegi nag tëdd na fa le 27 mai ba début décembre bi bàyyi nañ ko juróom benn weer et quelques léegi génn na. waaye du Jamra moo ko porté woon plainte Jamra baaloon na ko kooku na leer pour les auditeurs de Dakar euh, Net alors maintenant ma doon ñaan nag ñi tolloog moom jamono tolloog moom at ngir yàlla nañ jël leçon ci lii ndax ba Jamra di ko yedd mu ñuy xas naan dañuy lekk suppu kànja këram lu ne ñu di ko ci dégg alors lu baax lañ ko bëggaloon pendant ce temps am na ñu dem ca télé yeeg rajo ya di tirer à boulet rouge contre Jamra ay kilifa. naan bàyyi leen rangu colom gi aayul eh, vie privée la te vie privée yoonu lislaam new ci ñooñu anañu ñooñu nga xam ne ñoo ko doon tàcc muy tëb di rëppatal di tëb ba mbëkk mur bi ne ci ruux dugg kaso ñoom ñëpp a daw amu ci kenn ku dem prison sax ne ko am maa la jëndal sandwich bi wala eh, orange beeg mango beeg banaana bi daw nañu kon nag nangeen ngeen ràññee ñi leen di yedd pour ngeen baax pour ngeen am seen jàmm pour ngeen bañ jalgati yoon ak ngeen nekk nekkin boo xam ne di ngeen sàmmanteeg ngor ak diine na ngeen ràññee ñooñu ak ñi leen di jay ngeen dugg ci pax te boo leen dugg ci pax ñu daw voilà loolu lay dénk jeunes yi nañ ci bàyyi xel ndax lu mel ni Dakar Net dafa bokk ci ñiy alerter ñoom ay lanceur d'alerte lañ